Euh, monsieur le maire euh, Cheikh Gueye may fàttali ne yow yaay euh, maire commune jëppal euh, derklé tey jii ñu wax ci li nga xam ne moo lëmbee àdduna bi jamono ji Sénégal gis nañ ne chaque jour état des lieux bi maanaam situation bi moo ngi gën di évoluer quatorze cas de plus gannaaw nag xayma bu njëkk gan xayma gu ñu mujj def ministère de la santé tey jii nan nga jàngatee mbir mi. alors ni ma ko jàngatee mooy mbir mi wax dëgg yàlla mu ngi yokk. yokk googu mu yokk nag li ñu war li ñu ci war a jàng mooy ñu yeewu te bàyyi yenn yi nga xam ni yëfi caaxaan la luy jot jot na gannaaw dee li wolof di wax mbir mi garaaw na garaaw boo xam ni kenn ku ci nekk war nga aar sa bopp bu ko defee ñun ñëpp ñu aarandoo suñu bopp boo aaree sa bopp da aar sa morom te mbir mi noonu lay mën a saafarao ku nekk aar sa bopp lii borom réew mi wax defe naa ñëpp dégg nañu ko te la mu wax lépp wax dëgg yàlla ñun ànd nañ ci bokk nañ ci def nañ ko suñu yëfi bopp ñi ñaan kenn ku nekk nga am ci déggin boobu ak taxawaay boobu ndax ku gis lu xew ci àdduna bi gis jàngoro bi li muy fàtt ci doomu aadama bu ñëwee liw bu mel am na ci réew mi ku tiitulit deseg sa sago war nga am sa soppi taxawaay soppi doxalin te xam ne nag luy jot jot na ginnaaw dee nañu wax ak ñi ñu war a waxal ginnaaw bu ñu waxee it nañu jëf pour xam ban taxawaay la ñu war a am ma bamtuwaat xam ni waa kër docteur yi ñu koy digal mm-hmm. te kenn ku nekk war ko def sa yëfi bopp mu ni nañu bàyyi nuyonte bi joxante loxo ak saafonte bi loolu lu yokk jàngoro bi ginnaaw buñ ko bàyyee nañu raxas suñu loxo ba mu set wecc saa su ne ak saabu bu ñu génnee ci kër gi na ñuy raxasu bu ñu dellusee ci kër gi nañuy raxasu ba lu ñu def leen lu mënti doon ñuy raxas suñu loxo ba mu set wecc ak saabu ñaareel bi bu ñu tisooli mbaa ñuy sëqët nañu ko def ci mouchoir bu ñu paree ñu sànni mouchoir bi ci mbalit ma polu mbalit ma bu weesoo bu ñu amul mouchoir di tisooli baa di sëqët nañu tisool wala ñu sëqët suñu conc bu ñu paree ñu wut luñ ko fompe sànni ko ci lu mbalit ma leneen li ci des mooy ku ci am solution hydroalcoolique ñu koy wax gel bi ginnaaw boo raxasoo ba noppi nga raxas sa loxo ba mu set wecc loolu mën na aar nit ci jàngoro bi lii de bokk na ci dig digle yi nga xam ni waa kër docteur joxe nañu ko te njort naa ne képp ku ko jëfee jàngoro bi dégg rek nga ci am waaye doo ko gis doo gis ku mu dal kon nag nu ñu jëfe yi nga xam ni waa kër docteur baaxe nañu ko ndax jëfe ko mooy tax mucc ci feebar bi. ci jëfe googu sax gis nañ ne yenn collectif de maires du Sénégal dañ neen dajaloo wax euh, ci jëm euh, ci plan de riposte bi lan lañ mën a jàppandi ci seen waxtaan googu. waaw xanaa fàttali ne rek bi jàngoro bi tàmbalee ba léegi maireu ndakaaru yi dix-neuf ndakaaru yi dañu taxawal lu ñuy wooyee comité non collectif des maires de Dakar. pour la riposte contre le Covid-19 ñu nekkoon suñu ñaareel xaw ñetteelu ndaje muy ndaje bu am solo ndaje boo xam dañ ko woon président wu maire Sénégal yi muy Alioune Sall di maire Guédiawaye ndaje ba waxtaan yu xóot yaatu lañ fa amal waxtaan lañu fa lu ne rafet it taxawaay ak doxalin bi nga xam ni boroom réew mi dund ko mhm. ndax li mu wax askan wi ba ñëpp dégg ko rafetlu nañ ko def ko suñu yëfi bopp def ko suñu moomeel loolu it ñu ngi ñaan kenn ku nekk ci ñun moom ci taxawaay boobu gis nga boobaak léegi lekkul naanul tëddul nelawul mu ngi recevoir ay autorité moo xam politique la moo xam ci diine yi la moo xam société civile la pour ñu waxtaani réew mi ban taxawaay lañu ñu war a am ci jàngoro bi nga xam ni ci àdduna bi lim fi faat ci doomu aadama kenn xamu lu mu toll. waaw balay mbir mi nekk di wéy di weesu mbuus. Mhm. nañu jëfee ndigal yooyu am taxawaay boobu ngir mucc. muccal suñu njaboot muccal suñu askan ci jàngoro bi. jëm ci euh, li nga xam ne sax mooy mbir yi ñu taxawal couvre-feu bi gis nañ ko ci waaye maire yi euh, ñoom bokkuñu ci ñi am dérogation ñu gis ne tamit ci seen waxtaan yëkkati ngeen boobule euh, mbir lan ngeen bëgg jamono ji. waaw poñ boobu biñ koy yëgee lan ci am mooy njàqare ak tiitaange mhm. ndax maire dafa tekk lu bari ci goxam. nit ñi am ci moom yaakaar bu jàngoro bi amul woon sax maire bi day dugg ci kër yi di saafoonteeg askanam di xam ki tawat ak ki tawatul mhm. di xam ki soxla ak ki sant yàlla jàngoro bi am ñëw nekk beneen musiba bu dal ci kaw askan bi nga ni yow mi doon def loolu kat du ma la permettre ngay génn guddi ci yenn heure yi wala di dem ak ci biir réew mi day indi njàqare ak tiitaange ci meer bi waaye ci askan bi li koy firndeel mooy démb am na benn maire mooy maire Wakaam di Samba Bathily Diallo nee na bi ñu defee état d'urgence bi dafa am lakk boo xam ne faat na sax doomu aadama nu ñëw këram di ko woo woo ko ci téléphone ni ko Samba Bathily génnal lakk gi mi ngi ëpp do loxo mu ne leen man mënumaa génn parce que li tënk nit ñi moom a tënk mënuma génn état d'urgence bi la xam nga loolu njàqare lay indi ak musiba lay indi ci askan beneen message bi mooy dafa am maire boo xam ne suñu xarit la di alimaane dëkk di maire Paolos Koto daa ñëwoon fii ci Ndakaaru jënd ay jumtukaay yoo xam ne moom la war a yóbbu ca goxam ba mu yilif waaye dogal bii moom moo dal ci kawam ba dem bi ak dikk bi day jafe ci moom te jàpp naa ni maire yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal lim bu takku la ñi ciy dëkk te des ci Ndakaaru lim bu tuuti la bu ñu leen ubbilee yoon wi may leen ñuy dem ak dikk li ñuy wut yëpp ñu di ko wut ci Ndakaaru peut-être bu ñu duggee ba am sax ña ñu ko baaxee boo sàggantul du ñu ci jot ñu ni nag nañu seet pexe boo xam ni mhm. maire yi wax dëgg yàlla daañu leen dugal ci arrêté boobu bu nga defee ñum mën wax ak seen askan jàppale leen ba fitna ni teg ñetteel bi ma ci teg mooy suñu doomu nday Bamba Fall maire Madina mhm. barki dem ñi defee état d'urgence bi dafa am xale yu bari yu doon def ay émeute foofu lu nekk ñu def ko mais dañu mujj ne ñu dem woowu maire bi wax ak moom ngir moo wax ak askanam te boobu état d'urgence am na mhm. waaye bu fekkee ni état d'urgence bi moom bokk ci woon jamono jooju mënoon na génn di wax ak askanam ni leen lii kat yoon dafa dal seen kaw fii war leen fi taxaw heure bii bu jotee war ngeen dem ñibbi seen kër. Hmm. di ñaan jàmm rek yal na yàlla def jàmm ci réew mi. mais xam ne état d'urgence bu amee ci réew mi du ñàkk léeg-léeg mu am lakk ci marché wala lakk fenn sax wala jëyee fenn waaye maire ba la ñuy bu fekkee ni maire bi mënu fa ak mun a génn mais jëye boobu pour ñu ko war a fay yëg ko wala ñu gaawal mbir mi ba mu fay dana doy waar. moo tax ñuy ñaan nguur gi wax dëgg yàlla di leen wax ni nañu jël maire yi dugal leen ci arrêté boobu mhm. pour ñuy mën dem ak dikk pour ñuy mën a génn guddi génn goo xam ne njariñ dong lay doon ngir askan wi ngir jàmm rek ngir xeex jàngoro bi ñuy wax coronavirus. wax ci xeex gi sax am na ay koppar yi nga xam ne dañ koo bëgg a jagleel euh, boobule xeex yéen meer yi tamit ngeen yëkkati kàddu nee nañ leen ci boole nan ngeen bëggee euh, ñu boole leen ci boobule euh, fon waaw koppar yooyu ginnaaw biñ ko rafetloo. Mhm. def ko suñu yëfi bopp dañu sàkku sax ci njiitu réew mi pour mu yokk lim bi mu nekk lim bu takk boo xam wax dëgg yàlla képp ku aajowoon ndimbal ndimbal dina mën agsi ci yow. waaye ndimbal loolu lañuy def waruñu ci bedd maire yi au contraire dañ leen ci war a boole buñ ko jiitewul it bokk ci ñi ko jiite parce que ñoo xam ña ko itteewoo ñoo xam fan la ndimbal li war a dem ba ñu àggale ko fu loolu la maire yi wax ndax bu jàngoro bi amul sax maire yi loolu ñuy dëkkee ci seen gox moo xam gàmmu moo xam màggal moo xam appel moo xam takk moo xam ceeb moo xam dëgg la maire lañuy woo di sàkku ci ñoom ndimbal moo xam jàngale ci yu mel noonu kon lii bu amee ñu di ko yóbbu ci askan wi yéene leen ko ngir jàmm ak jafe-jafe bi nga xam ne tey jii moom la gàllan jànkonteel dana jaadu nag ñu ni maire bokk ci mbir mi ndax yéen lu waay waay waay xam sàmba sàmba la gën a xam sàmb lu waay waay xam gox bi xam nit ñi maire bi moo la ko gën a xam xam ñu koy itteewoo ak ñu ko soxla. loolu sax gis nañ ci tamit ay maire yi nga xam ne euh, jamono ji ñoom it euh, ñoo ngi taxaw euh, ngir riposte googule ca jëppal derkle nan la Cheikh Gueye fas yéene taxaw daal di xeex coronavirus. xanaa sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed. Mhm. ndax bi ñu déggee jàngoro bi ca Europe xam ni mi ngi raam di ñëw ci le mars. nga xam ne état bi dafa noonu samedi bu njëkk ci weer wu nekk dañ koy jeg jegeel dañ koy jegleel set setal ñun dañ ne woon le 7 mars ginnaaw set setal bi dañ ciy def activité de sensibilisation ak équipe médicale bu district Gaspard Camara waaye joxe ci ay jumtukaay pour askan wi mën na yeewu ci feebar bi xam ban waaye la ci war a am mm-hmm. ñu taamu woon nag dem ci marché Castor ndax foofu nit ñi dañ fay daje waaye bi jamono ñëwee ba dëkk dogal dikk nii tere nañu benn bépp rassemblement huit mars sa doolul am ñun au ñu def cleaning day dañu def sensibilisation ak distribution de produits d'hygiène ci marché Castor ñu rafetlu ko lool nag waaye yamuñu ci loolu bañ ca jógee dañu dajale bàjjenu gox yi dajale délégué de quartier yi dajale jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci conseil municipal bi woo ICP bi nekk fii ci poste de santé bi mu xibaar ñu ban taxawaay la lañu war a am ci jàngoro boobu ginnaaw ba mu ñu waxee di jàngoro bi li muy def ak li muy fàtti doomu aadama ñu waxtaane ko waxtaan wu yaatu yemuñu ca am ñu dëkk ci réew te dara ñoru leen lu dul defar réew mi li may faral di wax dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi ak gën ginnaaw loolu ñoom indi seen ndimbal moo xam saabu la moo xam eau de javel la moo xam sote la lu mu mënti doon ñu indi ko keroog bi ñu délégué bi quartier yi di ñibbi ak bàjjenu gox yi ak conseillers yi kenn ku ci nekk dañ laa baaxee benn loo boo xam ni moom nga war jëfandikoo sa kër wane exemple bi boo demee sa gox nga wax nit ñi ñu roy la ci loolu loolu def nañu ko mais yamuñu ci loolu ginnaaw jëf ju mag jooju dafa am kuréel bu ñuy wax association des femmes visionnaires nekk fii ci jëppal derkale ñoom ñu ñi mm-hmm. ñu des ginnaaw du ñu bëgg a dugal seen loxo ci xeer bi dañuy dajale lépp lu ñu am ak lu ñu amul ñëw jébbale ko monsieur le maire bu ko defee nga yóbbu ko ci gox yi yóbbu ko ci daara yi yóbbu ko ci askan yi ñu di leen ci sant di leen ci gërëm mais ñoom rek defuñu ko association les amis d'enfance de Dieuppeul samedi passé dañu organiser journée de sensibilisation ci biir commune ànd ceeg koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu santé publique muy docteur Ibrahima Seck ñu waxtaane askan wi ci jàngoro bi ak taxawaay bi ñu war a am jébbal leen aussi ay jumtukaay dem nañu ci béréb yu yàpp uh-huh. jigéenu conseil municipal bi ñoom it daal ni duñu des ginnaaw dajale la ñu am ñëw jébbal ko mairie bi am na ñu bari ñu jox ay ay mbir uh-huh. réseau des femmes sigil jigéen ñoom it pour une valeur de six cent mille francs jox ñu ay produits di jébbal leen ko askan wi léegi bi may woo ci mbirum tubaab bi am na soxna su baax suñu wax madame Sow moo ma woo ci téléphone bi ni ma man de sama borom kër moo ma yónni ci yow nee na dafa bëgg jox dugal loxoom ci ndimbalu xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex fas yéene nañu la jox ceeb jox la madaar jox la eau de javel cinq tonnes ceeb vingt cartons de madaar ak vingt cartons eau de javel xam nga loolu ndimbal la mm-hmm. nit ki bu la dimbali ci xeex bi jaay jëf rek nga koy war te la tax mu di ko def wallaay na àgg ca ña tax ak ñamu yaakaar may sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ni duwaluñu seen loxo ci xeer am na commerçant bu mag ci Castor indi na fi lu takk aussi ci xaalis ci alal ci produit ak geneen góor gu dëkk ci commune gi góor gi si la ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm gis nañu ni xam nañu fi réew mi xam nañu fi gox bi toll xam nañu doole yamul ñu jàppalante dimbalante bennoo ngir xeex jàngoro bi ba jàmm rek dellu si waat feebar bi dégg rek day mucc. yow it ñu lay gërëm monsieur le maire. jërëjëf man maa lay gërëm dina sant. Mhm. di leen jaajëfal ci liggéey bu yaatu bu rafet bii ngeen di def. Mhm. ndax lii ngeen di def lu am solo la a ngi xamal ku xamul woon yéen a ngi yee kuy yeewul woon yéen a ngi def ba askan wi xam ban taxawaay la war a ci jàngoro bi ba mën ko moytu jàngoro ba ñu dugg suñu. suñu biir kër yi bañ a dugg suñu biir gox yi dégg rek doy ci yàlla mi mën yàlla mi mën ci barke ajuma ji yàlla nañu yàlla tàqaleeg jàngoro bi yàlla na yàlla saafara askanu Sénégal yàlla yàlla def jàmm ba jàngoro ji dem yoonam ñu dind ko ci réew mi faj ko fay ko abadan yàlla mën na ko yàlla yàlla def ci barke juma mu barak amin monsieur le maire Cheikh Gueye may fàttali ne moom lañ dalaloon tey jii ci matinalu Rewmi FM